ku ne dàngu ne këri suuf parce que waa dàngu këri suuf bii la ñu jógee euh, le 6 juin 1904 suñu maam si waxtaan bu ñu amoon ak tubaab yi ñu décidé ne dañuy dugg dañuy dañuy taxu dañuy tuddee taxu bi donc taxu bi lañuy lañuy la ñuy fêté moom la ñuy célébrer bu fekkente fii lañ jóge dem foofu tey ñuy cent vingt ans yi defe naa lu jaadu la pour ñu liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk tey muy waa këri suuf bu njëkk mu dëkk mu tuddoon dàngu ngaal donc loolu moo tax ñuy ñuy liggéey ak ñoom danaa liggéey bu bu naturel la quoi maintenant euh, liñ bëgg a def nii muy cent vingt ans wu dàngu dañ ko wékk si ñaar ñaari poñ ñaari pàcc benn pàcc bi mooy fàttali cosaanu lébu waaye aussi feete ko mu doon mbégte pour ñun la culture vraiment euh, culture dafa don li nga xamanteni mom moy moy mbekté ci diga diga fatali nit dafa war di fier ci li nga xamanteni mom la am comme patrimoine bokk na ci ay ndaw rabin bokk na ci ay baw nan mo waron wax sama ci ci bokk na ci ay ndëpp lolou lepp lepp mom moko mom da ko jëlat bu pam tey ko bu baax euh lolou mo tax sax ci activité yi nga xamanteni mom lañu bëgg def yoy yëpp prévoir nañ ko ci ci octobre bi nga xamanteni fofu lañu bëgg def muy 4 5 ak 6 octobre euh, beneen bi beneen beneen euh, pàcc bi mooy fexe également profité si liñ bëgg a def lépp pour dàngu ñu tekk si raayu vraiment raayu suqo suqaliku mun a am naataange ndax ñun liñ jàppee naataange pour pour nga am ko mu sax dak mooy da ngay da nga si da nga siy ji ji si xale yi lu jëm si wàllu si wàllu jàng mi seen école ñu mën a am féex féexaayu yaram féexaayu xel pour mën a euh, tollu ak seen morom yi nga xamante ñoo leen tane pour ñu mëna a jàng bu baax si walu wér yaram aussi ñu bëgg ko def parce que amna ay politique yo xam état moko mettre en place ñu jëm ci couverture maladie universelle 3500 ngay joxe état bi joxe 3500 après nga mën di faju ci atmi donc loolu politique yo bi nga mëna am nga am wér yaram di jàng ak xel mu dal japp nañ ne fexe at yi di jëw dangu dina bari ñoo xamanteni ne ay euh, ay ay ay nit yoo xamante ñu la si si ci parti yu bari ñu mën delloo loolu ñu mën delloo loolu dang loolu la tuddé moy développement bo xamanteni ni day sax dak structurel ñu sax bëgg nañ aussi yo xamanteni bon lu yagul la c'est des à court terme def des euh, pavés d'angle d'angle sans sable liggéey wal liggéey aussi ci walu assainissement bi loolu bëgg nañ ko def bëgg nañ aussi am benn boutique bu mag boo xamante ne moom la ñu tuddee surface commerciale boo xam ne dañ fay def ay commerce mais waa dangu ñoom ñoo koy moom maitriser li nga xamante ne ni moom la ñuy lekk da bokk loolu day bokk si aspect si aspect développement